dañuy bañ ko yàq seen combat. mais Sénégal ku xam démbam. ñu jaar ci esclavage. jaar ci colonisation. ñun mënuñoo ragal kaso. gore gi lan moo ko indi fii ci réew mi. parce que il faut ñu wax nit ñi histoire du Sénégal. gore am na suñu maam yoo xam ne bi fi tubaab bi ñëwee di leen jàpp jaam. dañuy ñëw taxaw ci buntu ci buntu gaal gi la ñuy taxaw daanu ci biir géej gi. Mm-hmm. ñu tuddee dëkk bi gore gore mooy. dee ci géej gi moom a gënal tubaab bi jàpp ma jaam mhm. ngor loolu moo indi taarixam mhm. am na sun maam yam dañ daan daanu ci géej gi moo moo leen gënal tubaab bi jàpp leen mhm. même tubaab yi bi ñuy bind bi ñuy bind histoire Sénégal nee na ñi gënoon di fipp di bañ bi ñu leen di nopp ñi ci ëpp bi ñu leen toppee toppaat seeni seeni histoire ñu ci bari ay sénégalais la kon Sénégal jàpp ma ni réew mu Thierno Souleymane Baal jaar almaami Abdou Khadir kenn jaar fa. Mhm. ñu exilé fi Serigne Touba. Mhm. Seydaaji Malick ñëw daaj zawiyam fii ci digg Ndakaaru. Mhm. kon ragal man ku xam ñooñu mënoo ragal. kon buñ jaawalee ragal amul ci réew mi man loolu laa gëm. mais réew mi duñu xeex ba agsi fii di def ay erreur ñu ñuy jàpp. xeex bi di jeex stratégie la la mais mais mais kaso kaso kaso bàmmee la ko gën a tàng. te ku gëm ne di nga fa dugg ah, te doo fa fekk kenn kon mënoo ragal kaso. yaa ngi nit ñi ragaluñu kaso dafa fekk ni dañ leen ko dul yombalal man nee naa leen man Imam Dramé ku may jàpp di nga wax li nga ma jàppee man ba ma jàppoon di nga wax sëñ Muntaxa di leen leen loo jàppee Imam sëñ Babacar Sy Mansour di leen loo ko jàppee. Mhm. ñun du ñu doxandeem man ñun du ñu doxandeem ci réew mi lañ dëkk. Mhm. déglu ñu waxtaan li may wax message la. Mhm. man ku ma jàpp di nga wax nit ñi li ma jàppee. ndax man du ma wax waxi dof. du ma wax lu lu waa bañ. gis nga xeex xel moo koy def. xeex muus kon damay wax nit ñi bu fi kenn di wax waxi dof ñu lay jàpp. li des ci combat bi mooy dañuy xeex ak stratégie. xeex ak xam-xam. yaa ngi dégg parce que tey ñun ñëpp bu ñu jàppee combat bi jeex. te président Ousmane yàgg nañu ko wax. kon loolu maas damay kii rek euh, dalal sa xel léegi nag mu des CEDEAO il faut foofu xam nga CEDEAO lu ñu leen di doyee. CEDEAO CD rek lañ leen di doyee CD mais ñun xam nañ ni CEDEAO amul benn impact ci dossier bi bu mu mën a def. même tey bu àtte woon jox favoriser Ousmane Sonko état Sénégal li muy wax Sénégal yëpp xam nañ ko mooy CEDEAO Sénégal état de souveraineté la. est un pays mais ñun ndam li ñu am jëlewuñ ko CEDEAO sena moo ñu ko jox. il faut ñu ñu ñëw fii affaire bi nekk. non Ziguinchor jugement lañ ko jox. d'accord Sabasi moo ñu ko jox. Mhm. di ab sénégalais dëkk ci réew mi sant Sabasi. juge Samba Dial euh, Sabassi Faye Sabassi Faye sant fay boole ji mm-hmm. sa important Faye la sant waaw kooku moom kenn ñi mu ko wax ni doxandéem mm-hmm. nga parce que loolu lañ tàmm léegi maa ngi dégg benn bandi bu mag bu bokk ci ñoom mu naan diw doxandéem la loolu nit war na ko wax ci réew mi bandi mooy la ñëw tamit non bandi loolu mm-hmm. il faut il faut ñu wax dëgg parce que réew mi boo fekkee nit naan ko doxandéem kooku bu doon ci état de droit boo ko waxee dañ lay jàpp parce que réew yi tàkk réew yi tàkk yëpp looloo ko taal diw doxandéem la moo taal Côte d'Ivoire loolu affaire xeet la ku ko wax ci réew dañ laa war a jàpp bu dee réew moomu réew mu responsable ay responsable la te loolu damay wax ni buñ ko caaxaane réew mi lu ñu politique politique am na loxoom buñ ci dugg affaire u diine jàmbur affaire u ethnie bu ko kenn laal affaire waaso affaire waaso dafa sensible mm-hmm. kon ab juge moo ñu jox dëgg Sénat ñëw confirmer ko Doudou Ndir nekk magistrat bu mag mm-hmm. jàng droit mm-hmm. yaa ngi dégg kon ñun am nañ ndam ba pare yaa ngi dégg sunu ndam lañ dul nangu kenn du ko foqati. kenn du ko xajamal. moom laa la doon junj sànq ma ne la juridiquement dóor nañ leen li ci des nag politique la politique nag moom terrain bi moo koy def te ñun kenn duñu ko jàngal xam nañ ñu koy defee kon loolu dama ci wax sénégalais yi rawatina patriotes yi bu leen ke bu kenn jaxase seen xel match bi dem na 2-0 la ñoo ko am. juste si Faye dugal na benn Sénat dugal benn muy yaa ngi dégg. ñuy xaar DG ngi ci camp yi de. non DG génn na camp yi xam nga lu tax. ba léegi man malheureusement bi ma xam nga man candee la. Mhm. xam naa ay maamam. te noo candee la fa. waaw boo déggee tur yi rek xam nga turu caddo la parce que réew mi il faut ñu xam réew mi dafa am benn waxkat bu mag bu ñuy wax Alain Focar gis nga waxam boobu dafa ma neex day wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple mu ni car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme. gis nga boo xamee caddo yi fii ci réew mi caddo yi mosuñoo fen mosuñu laa wax lu dul dëgg boo gisee même bi lislaam duggee ci réew mi suñ maam yëpp dañoo takk ay soxna yu caddo parce que dañoo xam ni caddo bu la nee damay dee suba suba lay dee yaa ngi dégg moo tax moo tax man man man man am naa kersa ma daaneel am naa gàcca mais fooguma woon nii ku xam ku sant Fall laa de li muy représenté ci réew mi parce que réew mi nekk dafa am taarix man Kajoor laa dëkk man Kajoor gëm a dëkk àndulaay boo fa demee fa la Cheikh dëkk sama maam ña sant Fall ñoo ko may fu mu teg daaraam samp fa euh, jàkka ba tey jii ñun ñu juddoo fa kon man xam naa ñi sant Fall li ñuy représenté ci réew mi moo tax ma koy wax ca ndee la dellusiwaatal Macky Sall jarul mukk ngay sacrifier sa bopp. recul mon frère man xamante nañ bu baax ñoo dëkk. te xam na la. moom man réew mi ñëpp ma xam. Mhm. ñi fi sérieux ñëpp ma xam. ku la xamul sérieux. ku ma xamul sérieux. ah mais noonu la waa imam bi tamit loolu moo. waaw maa fi maa maa sérieux. maa moom sérieux maa moom. maa moom bokkul ci si sérieux. non dama ne ku ma xamul sérieux. non non dëgg la xam nga loolu maa moom. xam nga ni da ngay xam sa bopp. Mm-hmm. xam ba xam jeex xam sa bopp ci dàq. dëgg la man nag. xam naa sama bopp tàgguuma sama bopp nag. réew mi ku fi sérieux xam nga ma. te ñuy déglu réew mi xam nañ ma. sérieux wul xamul waaw wala ñi noo xam nañ ma sax. Uh-huh. dañ may bañ a xam-xam lu. ndax man fa ma dëkk ñëpp ko xam man rek la sama maam. toogoon tey jii Seydi Hadji ñëw fekk si ko. Serigne Touba ñëw Cheikh na Cheikh Saad bu ñëw. Abdou borom jaamal ñëw juróom-ñaari wàllu ci benn jotaay. sama maam rek lañ fekk si Sénégal kon ku ne xamoo ma sérieux loolu kay jëppees bembe réew mi ñëpp ma xam <laughs> ma kon la mhm. na nga del siwaat parce que réew mi dañuy bindaat histoire bi de mhm. te jàpp naa ni yow say maam dañ leen bindal lu baax Cheikh Ibra boo ko tuddee ñëpp yuuxu li ko ko mayoon mooy ngor li ko ko mayoon mooy war a falu buur bàyyi fa nguur ga dégg ponkalum wàllu yu bu woote mu dem jaayanteeg moom kon réew mi am na sant yoo xam ni boo ko déggee boo déggee ni ñu ngi siisu ci lenn da ngay xam ni yaa problème mm-hmm. rien n'est trop tard nag pour nga dellusiwaat parce que article yi ngay bind élèves sem 2 sax d'accorduñ ci mm-hmm. li mooy dëgg <laughs> mm-hmm. léegi géej gi nga doon wax géej gi dafa baax ñu taxaw ci li tax xale yi di jël géej gi léegi nga nga nga kiiwaale ci nga joué sa temps de parole comme ça après su ma tourné nii parce que géej gi liñ ci war a wax rek maas junj na ko sànq man damaa gëm république jox confiance sama république loolu laa mos a gëm te loolu ku ma yàgg a topp xam ni loolu man damaa bokk ci ñu gëm république république waaw parce que damaa dund ci réew yoo xam ne caaxaan nañ ba république ñàkk fa mm-hmm. fam leen yóbbu man dund naa le printemps arabe réew boo caaxaanee ba jël réew mi yóbbu ko ci leneen lu du république ñëppay perte mm-hmm. dama gëm suñu république bi loo mën a wax mm-hmm. république bu ñu structuré la gis nga xale yi di jël géej gi bu neexoon Macky Sall suba mu dakk ak fu muy jaar fu muy jaar weesuwul armée bi ñu am fii fépp foo leen tudd ci àdduna bi ñu respecté leen ndax seen taxawaay